Père Carlos 221. Abonnez-vous. jërë ngeen jëf mbokk yi rafetlu andin bi ak Dakar News 221 di leen wax ngeen way di abonné ci chaîne bi ba noppi activé li nga xam ne nii mooy cloche de notification bi bu ko defee bés bu nekk di ngeen mën a jot suñu vidéo mbokk yi xibaar yi tey dañ koy doore ak naqar ak tiis naqar dal ci euh, sport Sénégal ak ki nga xam ne nii ñooy njabootu Omar Ndiaye ñu gën koo xam ci V Ndiaye V Ndiaye nag mu nga nekkoon fële ca Tugal doon football ci benn club bu ñu naan foofu la nekkoon nekkoon fa défenseur central waaye kii di di Omar Ndiaye dañu nemmeeku dimanche bi le 2 octobre ginnaaw bi ñu nekkee ci terrain bi di amal ay jongante ci la daanoo bi mu daanoo foofu crise cardiaque fa la mujjee ñàkkee bakkanam moom Omar Ndiaye nag nekkoon euh, xale bu amoon 28 ans amoon talent lool ci football bi waaye suñu borom noonu la ko dogalee mujjee ko moom ci li nga xam ne nii moom la bëggoon mu nekkoon li nga xam ne nii mooy liggéeyam wax dëgg yàlla ñu koy jaale monde sport bi yëpp di ko jaale waa Sénégal yëpp incha allah rabbi mbokk yi dinañ bi lu ci amaan rek lu yees nañ leen ko dégtal fii ci dakaar News 221 jërë Dakar News 221